man euh, maay présidente RENAFES RENAFES bi ñun ñoo am atelier mais di ko pour ñu waxtaan euh, euh, femmes duñu ci société civile ñu am ñu ñu jappalé PRB bi une étude ici au Sénégal gis na fait deux fois plus

di def liggéey bi correctement soo gisee ku góor mun a toog si biiram di def liggéey c'est parce que si këram su wàccee dina fekk kër gu set dina fekk añ bu pare dina fekk ay doom yu ñu toppatoo yu ñu sàng yu ñu defar yóbbu ko école jëli leen dina ñu fekk yaay ak doom peut-être ku fa nekk si kër gi jigéen ji toppatoo na ko donc mu xam ne fii kër la su paree dina jaajëfal jabar ji war na ne ensemble ñun ñoo bokk kër gi Nous allons nous parce que luy goût di gagné pour pour pour la Donc, ne pour kër gi la kenn privé kenn dafay indi pour gi ndaw si tamit def pour kër gi donc nous lu ñuy wax de mooy déggoo mais état bi xam ne moi, yore lépp dindi ministère femme bi sax da de def famille de joxe politique famille bi si parce que famille ku la la ak la loolu la famille donc dafa am solo jeexital bu am mooy góor gi nañu a a fay jànq xam nga doo ko fay mun nga fay nunu mun nga bañ fay sax crèche boo xam ne nga ko a sa doom mais ndaw si donc su amul woon su fa nekkul woon su ko deful woon liggéey boobu su ko deful économiquement doo ko a quantifier parce que déjà que valoriser wuñ ko trop moo ñu valoriser mais état encore une fois l'État, na ko dugal ci objectifu politiku socialam bi na ko ci dugal nañu déglu politiku mari kii familial maison kii euh, famille nañu xam lan mooy politique bi carrément da ko da il faut mu décliner politique gu famille si biir kër yi laal en ce moment jigéen ji dina épanouir parce que jigéen tam mënoo xëy suba ba 5 heures du matin ba ba ba ba 22 heures yaa ngi liggéey soo am ban njëriñ ngay am sa après. da ngay tas donc lañ ko wala nañ koy valoriser loolu moom ku ku góor ñu góor ñi nañu xam ne lii la ñu am ñu nekk ensemble parce que couple moom góor la jigéen la kër gi góor la jigéen la doom yi la famille la loolu mooy famille bi donc c'est important pour tey ñu lancer réflexion mais réflexion bu ñuy lancer ñun tey diñ ko def ak la société civile organisation société civile bi la ñuy àndandoo waxtaan discuter pour trouver maintenant ay formule ay stratégie yu baax loo xam ne communication boobu buñ ko xasee ba wax nit yi ñu mën a comprendre parce que des fois góor ji yaakaar ne euh, duñu bëgg a ñun jigéen ni ñu leen di fay déedéet am na mason boo xam ne daf ma ne man du daaj du ma daaj suba ba ngoon jot ma ñëw nag di def leneen man ko mën nga ko ne jërëjëf doo ma servir s'il te plaît café mu xam ne ne xam na sa coono xam nga coono bu muy def bi moom tam nga am coono su la jàppalee tey boo libéré tam nga jàppale ko. waa ndaje bi rek ci tënk rek euh, dafa dafa juddoo ci lëkkaloo bi ñu lëkkaloo ak université Thiès ci à travers seen consortium ak euh, lu ñuy wax per PRB Afrique bi nga xam ne bi population da ko tax a jóg ak euh, réseau des femmes syndicalistes. réseau de femmes syndicalistes ku ko xam rek xam na ne ñoom dañoo yàgg yëngu ci mbiru ak ak yelleefu jigéen rawatina ak ak yelleefu jigéen ci milieu bi ñuy liggéeyee monde du travail maintenant ñun dañ fi ñëw parce que Université Thiès ci à travers CREC dañu defaloon ay ay recherche ñu ne nañ ñëw partager recherche yooyu mais ñu concerté wu bu maanaam ñu weccante xalaat waxante li nga xam ne tey jii mën nañ ci sukkandiku pour mën a jëfandikoo résultat wu euh, euh, gëstu boobu Euh, tamit bu ko CREC defee am na neneen luñ ko defee Sénégal ANSD defaloon ñu ko xoolal ñu euh, euh, naka la jigéen ñi ak góor ñi di utiliser seen temps ñu gis ne li ci ëpp ci ci liggéey yi nga xamante ne mooy téye nit ñi jigéen ñi ñoo koy def ci biir kër yi maanaam téye xale def lépp te loolu tamit ci ñun la bokk ñu ne tamit loolu duñ ko du feeñ ci bu ñuy kal xayma sunu koomu réew suñu comptabilité bu réew maanaam fi ñuy xayma càmbar li nga xam ne mooy eh, kii produit réew mi loolu nag tekkiwul ne dañoo ne jigéen ñi buñ ko def de ñëpp koy def amul jigéen buy liggéey ak bu liggéeyul jigéen be toog ci kër ga ñun ñëpp koy def góor ñi dañ koy def mais jigéen ñi ñoo ci ëpp dañu gis ne nag temps bu bëree trop ci jigéen bi ñoom du ñu am tuuti temps pour mën a wuti koom te loolu ñun dañu mbébét pour que jigéen mënal boppam te te te buñ ko buñ ci buñ bu ñu sóoraalewul loolu dina dina indi ay sooxe wala ay gàllankoor pour jigéen mën a yëngu ba mënal boppam loolu moo tax ñu ne nañ toog xool nan lañ koy nan la ñuy eh, xoolee liñ ñu recommandé ci étude yi ñu càmbar ko ne ah bu ñu jaaree ci yoon jigéen dina mën a def loolu ku góor ki mu dina ko mën a def mais itam ñu may jigéen ñi temps euh, ñu mën a dem liggéey ñu gis ne tamit ñun yàgg nañ def politique yu mel noonu mais résultat yi ñu étudier wan dafa ñuy gën a rek dolli ñu xool naka la ñuy gën a yokkee jéego pour mën dimbali jigéen ñi euh, ku ci nekk solon yow sa profil ñu lay mën a jàppale pour nga mën a di libérer temps di mën a liggéey tranquillement même jigéen ñi nga xam ne dañuy liggéey itam da ngay gis ne yenn saa yi dinañu jël ay nit ñu leen di jàppale ci kër ga mais boo ko seetee la plupart dama koy wax jigéen boobu bu dee day liggéey mooy fayal boppam yeneen saa bu dee jigéen bu liggéeyul te borom kër bam baaxee ko loolu borom kër gi moo koy fay pour wax la ne ñëpp a ciy loolu nag ñun en ñoo ko euh, ñi nga xam ne dañuy fay ñoo ko waroon defal seen bopp donc am na ñu ko délégué yooy yëpp tey dinañ occasion wax ci parce que dinañ wax ci affaire travail décent te travail décent dafa laal ñi nga xam ne ñoo ñuy dimbali si kër yi ñu bëgg rek xool naka la ñu mën a organiser ba ñaari pàcc yi ci liggéey ci mbirum kër gi ak communauté maanaam temps bi nga xam ne da ngay joxe ay soins ay toppatoo nit ak yépp naka lañ koy organiser ba ku ci nekk gis ci boppam te kenn du loru ñi nga xam ne dañuy ñëw di dimbali itam dinañ xalaat ci ay voies lan la ñu mën a jaar pour dimbali ñooñu bi nga xam ne ku ci nekk di nga mën a indi sa participation ci yëf yi te kenn du ci loru kenn du ci yàqale loolu moo ñu tax a jóg tey ànd ceeg ñii ma leen limal nii mu nekk loo xam ne. am na lu ko jiitu wax nañu ak euh, député yi wax nañu ak ministère yi dinañ am yeneen occasion dugal ci yeneen euh, acteur pour waxtaan bi gën a yaatu ba ñu mën a gën a organiser mais njeexitalu lii yëpp mooy li ñuy wax bien net nekkin wu rafet nekkin wu mucc ayib nekkin woo xam ne ku nekk di nga jot sa bopp mais itam dina dinañu am équilibre loolu kese moo tax a jóg lii